ginnaaw bi ñu santee yàlla e jëkkee nuyu ñi nga xamante ni ñoo saytu lii la ca jëkk al ulama wal aimma ñaareel bi mooy borom ndoom bi tànk yi yàlla na leen yàlla yàggal ak seen seeni tànk seeni borom ndom bi tànk e nous al lujna al ilmiya la commission scientifique dina ci ñëw touti. dafa am loo xamante ni foog nit ñi xam ko diine ci bopam yalla bu ko wacce ci souf defé na ni professeur nga ne la ñom jibi jaxaté ay sociologue la ñoo ma a xam limay wax ngir nit man cee jariñu rek la ci fànn yu nek nak mais bu doon jàkka ji ñu tëju fii rek kon sa du am mais li am solo lu tax ma ñëw ci commission scientifique bi may taxawal def organigramme bi ak a yàgg dama jël ñaari commission tudde leen les commissions phares mooy la commission scientifique parce que mooy diine ji mooy woote bi ñaareel bi la commission infrastructure commission boobu infrastructure defe naa ne bari na lu ñu liggéey ci yoof ci cadre appel bi ak feneen ñooñu ñoo ko liggéey kon mbir mi diine la ak àdduna ñaari tànk yi ñun noonu la ñuy doxee rafet lool nag jataay bi li ma ci gën a neex balaa may tàmbali ci diine lay jëkk a tàmbalee nuyu kilifa diine yépp ci turu sëñ Mouhamadou Mokhtar réew mii di senegal diine sax na fi jëggaane ko kon fépp fu fi kilifa diine na laa ni ci réew mi lii ñu may taxaw di wax na la wóor ni yaa fi taxaw kon nu ngi nuyu sunu kilifa diine yépp macha allahu ci réewum senegal yaakaar naa ni bu ñu talee lii fii ñu toll nii tal ci suñu réew li ay mag yoroon a tax nu tal am na ñu ko talul fii ñu nekk même ci sous-région bi kon nag boo amee lu mel nii kilifa yu baax yi ku ne bàyyi koo fu ne jóge fu ne macha allah yaakaar naa ni daluk Sénégal et stabilité ak Sénégal ak lépp nu war nañoo taxaw fu nu toogee ñaanal mag ñi démb xam ni lii seen liggéey daf cee nekk parce que moo waral lii tey am ñu tudde que al islam ak noo ko mën a tuddee macha allah ñu am ak dal mu islam confrérique wuuteeg li ñu bëgg a wax tey ci kanam tuuti. Utek lu ñuy tuddee at tarruf ak lu ko niru kon nu ngi nuru sunu kilifa diine yi bu baax a baax sànq la fi Mansour jóge ah, am na lu ñu wax macha allah moom itam mu bokk ci kër gi ci mbokk waaye nag itam macha allah jokkoot ci kër maam borom Touba radiyallahu taala anhu e sëñ Saliou Mbacke macha allah Touba sëñ mohammed bu Kunt nga ne leen Chérif Mbaalo macha allah ci e, bokk ci ahlul bayt e Tiwaawan itazar imaam Ñang dafa am ngànt waaye macha allah bu nu fi taxawee ñooñu ñëpp fi taxaw ma jox leen lenn lu gën a wóor lii commission scientifique bii sëñ Abdou yàlla na yàlla yokki leeram doomam Moustapha. la yabal ci man ak ñeneen defe naa bi may recevoir ñoom cheikh ci cadre bi cheikh tidiane ñi ngi toog mu neel dama bëgg commission scientifique ci këri diine bu ñu sañoon nañ leen di dajale kon sëñ Abdou da doon dajale yàlla naka yàlla defal ay teranga fu mu tëdd nit da nga koy seedeel lu mu def ci ay kilifa yu baax ah dëgg dëgg dëgg ne école bu ñu ni ci teenu sëriñ Ablaye nga naanee fekk kilifa diine di nga ko parce que loolu rek moo doon dundam kon nu ngi du nuyu sunu kilifa diine yi bu baax a baax a baax bi ma nuyoon nag borom ndomb tànk yi ak macha allahu li nga xamante ni génn na fi sànq ci wax yu rafet ak ci nangam yu rafet ñuy ñaan yàlla yàlla leen fi yàlla yàggal yéen tim bu baax a baax a baax. e eh, bay ji bi jërëjëf waaye ñi ngeen ko bokkal muy fii ñun. E, bi ñuy taxawal li xàmmewuñu diine di tas jullit ñi abadan déedéet li nu gën a mbégte mi nu gën a am mooy ni ngeen boolee ñaari ndàngam yi ñëw naa fi ci ak Oustaz Assane ñoom macha allah njaboot gi gaa yi def fi ay waxtaan yu am solo loolu la ñu soxla réew mi ak diine moo soxla loolu gis nga réew mii di Sénégal bis bu nu sàgganee ba nu tëggal nuy tama sunu mbooloo di gën a def nii li dal gaayee nuy dal noo lànk waaye diine nag bu dee ab teen walla tool xam-xam ak ay suuxat wa illaa saay-saay jaar fa ruur ka rek kon bu ngeen toogee tey di yoof la commission scientifique ak yéen ak ñeneen ci boroomi xam-xam dajaloo day daal di gën a rafetal nag rawatee nag macha allahu gaa yëpp dugg ci biir ñun loolu la ñu gën a soxla. Alaaji Jaaju jërë ngeen jëf euh, groupement central mu teg. mu nekk ci loxoom mu jiite jiitin wu rafet dëkk nag ci dëkk bi loolu kenn werante waaye am taxawaay it ci li ñu ko dénk loolu boot na tim njaboot gi ci na mu leen war a boote kon ci yoof gii laay taxaw gërëm la sant la bu baax a baax a baax ñaanal la yàlla yàlla nga am réussite nga eh, gis nga li am solo professeur jibi jërëjëf parce que mi ngi bëgg yag mu bok ak ñun li nun dañu bok ci tendance bi nga xamantene jëlu nu diine di ko tëj ci néeg wala ci jak lolo waral bu at mu jot ñu am thème central bu ñuy développer defe naa ñëw nañ fi cohésion sociale lañu mujjé def dem nañ ba ci la bonne gouvernance et aujourd'hui sur le terrorisme ak extrémisme tey moo lëmba jamono lëmbaaje nepp loolu nag tey ci lañu ñu egsi ñëw ci at tarbiya ci wàllu éducation at tarbiya wa asarwaa mu muwaajahati at tatarruf at tarbiya islamiya pour gàttal yar ci lislaam hiya tanmiyatu fikril insaan wa tanzimi sulukihi wa awatifihi ala asas ad diin al islaami foofu la yar ne yar égal jubbanti waaye école yar yi bari nañu moo waral ah nun tim nag ñu naane ci benn teen di ay jullit boo gisee Seydina Limaamu ca xutbaam mu am lu mu wax bi mu ne inna haza waad mu ni lam yu addib naa mu ni walam yu allim naa mu ni shay'an min kitaabilaay bayna xawsayn at tarbiya al islamiyya yarunu xamaluñu lenn ci téere yàlla bi e ma faranna fi kitaab min shay kon moom yar moom sëy naa Limaam mu ngi ko gisee ca biir alquran al manbahul asil at tarbiya al ilahiya ar rabbaniya kooku mooy Seydina Limaam foofu la yare inna haza waliduna sunu waajur a ngi nii mais yaruñu xamaluñu ku nu yarul xamaluñu bàyyi ma nga kon moom teel na xam luy yar islamiyan li ci des nag unaaka madaris tarbiya wa nangam waaye ñun lii moo ci ñor bàyyiwu ci kenn te ku ne xam na ni ci wàllu yar e séq bari na waaye ñett ci am solo al usra awul madrasa awil masjid eh? summa wasaayil tawaasul ijtimaa wasaayil i'laam ak leneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñooñu rek ku ci ne am nga cër ci mbir mi mais gis nga mu ni uusikum bil iyaali maa ngi leen di dénku njaboot gi ci la waxe lii moom Seydina Limaamu kon ñëw na ci njaboot gi cof ci lu gàtt la ci des nag boroom xam-xam yee koy seet nee naa leen yar bu ñu koy wax walla fii ñu bëgg a jëm pour gàttal ci wàllu extremisme nee naa leen bërkat lu ñuy tuddee arab di am al amnur fikri la sécurité intellectuelle dafa am loo xamante ni dañ koy sécuriser bi maanaam bu ñu ko bàyyee noonu xale walla ku mu mënti doon ak ñeneen mais lavage de cerveau mën a ñëw man faa jaar bala nga yar ci biir yar ngay sécuriser sa njaboot tegal leen fu ñu mën jaar c'est important moo tax boroom xam-xam da ni fikri yaqtari fikri yaqtarinu daiman bi fasaadil aqida li anna al fikr huwa asasul amal nee na bu xel nëbee rek boo moytuwul dina rogalaat ba ca pas passé sa pas-pas kon xel ak bopp dañ koy sécuriser c'est important ndax ñi ngeen di tuddee extrémiste ay xalaat la yor yoo xamante ni ku bokkul ak ñoom xalaat bokkoo te xalaat yanu yor ndax yow niroo naag sa yos mais nanga xam ñaar yëpp te yow tegu fañu la tegoon démb nga mën a taataan ñaar mais ku ñu ni nëmm yomb yóbbu commencé ci kër yi dinga yor njaboot ci sa kër ci sa kanam ñu xëy di soppeeku benn par benn boo juree doom mu daan laa romb bàyyi na nga def di la nuyu ba yàgg mu lay romb di la wan ginnaaw suppi façonam nilai lay nilai ni nilai teud ni lay nangami ngay dem di dem bis bu takkee ceinture bu mu la bet bari na fi waja day def bitigam fele ca koñ bi di endoctriner ay nit la nga masal ne ban nangam ca ba na ñu ben ben ben ben ben benn nga xey ka nga ni moy sa nangam def ni nga dem fële ba yàgg ñu naan laa nangam nangam fekk togg nañu nangam it di la togg ndànk ngay xoole ba xëy bari na ñu ñu xëy yanu sànni foofu la affaire bi ne moo tax njaboot gi waajur yi am responsabilité bu rëy waaye nag ci kaw ndax waajur yooyu yaru nañu ndax waajur yooyu xam nañu mooy point d'interrogation kon lépp solo li ñuy tuddee al amnul fikri nag. am nu dafa bari ay sécurité nangam dama cey jël ñaar moom ëppal solo mu naak am nun bii sécurité je ne sais quoi nangam dedet mais ñaar parce que bo ñëwee ci walu extrémisme la jël lenn ci ay cause mais ñak ci la li ngeen nandi dafa tang xol ñak ci la c'est important te gaay dem nañ ba yaakaar ni ñak sax ci l'islam dafa bok ci dedet ñàkk amul benn relation bu am solo te nit ñi bu ñu leen toppee foofu la ñu jëm yam ndaxuuna al faqr te lu fi musiba mu fi am loola cala nag boo gisee yonte bi sallallahu alayhi wa lam yam daxil islaamul faq bal jaalal ghina ni'ma wa yutalab bi shukriha ba bi ni'mati rabbik fa hadis wa yajal al faqr musiba yustaazu billahi minha kaadal faqru an yakun kufran kooku yonente bee ko wax bu masaan julli fajar ba toog bokk na ci yi mu daan ñaan yàlla yàlla na ko yàlla musal ci ñàkk <laughs> yow nga bëgg a rafetal ñàkk bi maanaam rafetal ñàkk mooy lan mooy amoo benn ambition lu ñëw baax na nangam na déedéet bu fekkoon dañuy tëju ci jàkk ji ma ni zakat du am ida qudiyat sala fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah mais boo jëlee boppu xale yi dugal ci yoo xam ni dañuy xëy di nelaw ba ëllëg gars yi di produire nekk ci seen wet di la raw nga naan nun noo fi gën nun noo fi gën di nga xëy tëju di jooy yow rek te gars yi gën la ni nga gën a nit yi xam nga lan la diw yéen a fi gën aha kañ tank yaangi ngi ngeneel ngëneel ga bisu wadde ci yow ya waaja sol ko gën la maa la wax lii wa wajadaka ailan fa aghna kon kay principe général ci l'islam du way ni'mal malu salih lil mar'i salih la yonent bi wax kon principe bu ñak dama bëgg a ci cause du lenn la ci yii ñoo ko provoqué yii c'est la société yii ci wàllu ngëmin la kaana sallallahu alayhi wa sallam yasalu laahu alghina kama yasaluhu taqwa aw tuqa na mu daan ñaane yàlla oom oom la ko daan ñaane ragal ka kon ñaar ñi rekk fi ànd kon dama bëgg a wax ni spécialiste ngi nii ñoom ñooy wax ca loolu mais man lii ñu boo extrémisme ak ceci nangam na ah am na mais nañu càmbaraat suñuy société xool les causes yi nga xamante ni nag nit ki xëyul rek nekk rek nangam nangam ci ay idée nag parce que boo xoolee ñi ñu gën a mën a tàggat mooy ñi gën a ñàkk gars yi dugg ci seen biir di leen ñamal moo tax yàlla di buur bu mbaandu li ñuy tuddee al amnu chamil c'est la sécurité en tant que sécurité kooku dafa boole lépp allazi atamahum min juuin wa amanahum min xawfin atamahum min juuin al joo xiif il faut combattre la pauvreté xoolal atamahum min juuin ñàkk xiif xeeti ñàkk la waaye nag waa amanahum kon da ñaan bu ngeen xoolee warzuq ahlahu ah mina samaraat la yonent yàlla Ibrahima wax mooy na nit ñi am lu ñu def seen poos <laughs> yow na gaa yi fi naan ci jàgg yi wala fi naan ci yëf yi wala fi naan ci naan et di rêver en ce moment ay nit a ngi liggéey di produire di def leneen yow nga ne nag yaa toog yaa fi gën yow rek gaa yi lay ñëw yor la. képp koo xamante ni boo moytul moo la ëpp pouvoir économique moo lay ëpp pouvoir politique ça la vérité xool ko suñu réew yi rek gis nga pouvoir économique waxtu woo ko amul wala mu ruus wàcc ci yow gars yi wuti ka ci loolu la ñu amet pouvoir politique ici des da ngay rêver rek kon ñun dama yaakaar ne foofu la ñun fa la ñuy jàngate loolu li ci des

parce que suñuy wajur xamuñu la woon loolu fexe woon nañu ba xam fexe woon nañu fa gaa yi ñu wuti fa kon mënunoo toog bu heure bi nekki dof duñ ko def té nak chamber nañu réew mi parce que li fi fal gaa ci lañ bokk de naané en 1984 defe na wax na kay kilifa li ba ci sama. kër pap la ma fekk sëñ Ablaye ngi toog maa ngi toog convocation ba ma yor mu ngi sama kër groupe de réflexion góor gaa ngi nii ba fal Mamadou Diop 84 ci laa bokk man ak dun defe naa bu ngor e mu dun bu waxam ma jama taal bu aseg na Seydina Issa Ndiaye bu yoof chaque mercredi defe naa lañ doon daje bureau Mamadou Diop ministre de la santé man ña ñàkk a ca laa bokk ci groupe de man sëy naa bii taxaw tey do c'est en 1940 boobu ñu bari juddu wuñu kon defe naa ne nag nañu dunde suñu na citoyenneté gis nga réew mi am na loo xam ne doot fi jàll këri diine yi képp ku leen jël di leen dóorante bu ngeen di wut noonu kooka la amalul pas ni réew ni mais ñun li ñu téye ba heure bii nous suñu cohésion bi ñu am ci suñu kër yi bis bu ba mu ruus xool leen la sous-région ça la vérité il faut changer parce que c'est ce discours vraiment archaïque xew dépassé kon ñun duñu ñu ci école yooyu la commission est là li fi mag ñi doon def aha kañ ca la ñu toog waaye doxalin yi du benn déedéet <laughs> waaw ñu ngaak nag lañu toog am ka waaye ñoom it fexe nanu ba ubbil lu nag ay bunte yeneen yoo xamante ni tey jii am na loo xamante ku ñu koy bëgg a wax ku mel ni sëy naa danga may sonal du ma la déglu ku ma waxul développement du la déglu ñu ngi julli ñu ngi def li nu war a def wa ida qudiyati sa fantashiru nañu wuti et en même temps li yi xëccoo ñu xëccoo jikka foofu rek la affaire bi ne waaw wallahi foofu la ñu nekk donc gis nga nañu fexe gis nga al amnul fikri wal wal amnul yi fi lañu tollu tey ñaar ñi rek mën a ànd fexe ba lu ñuy la sécurité intellectuelle ñu sécuriser suñuy ndàngam mais ñaareel avons ñu am lu ñu def ci poche yi waaw loola fi ne de te li jox li dugal ci poche yi produire nangoo liggéey nangoo taxaw nangoo nangam moo koy joxe du nit ki li arab di axlaam di te day nelaw kon fi ne. et eh, macha allahu dañuy dellu ca la naa Ali waxoon li ëpp tey bu ngeen xoolee ndaw ñi rek ñoo fi ëpp te ñoom danoo am waar ci yëf yi kon nit ñi war nañ leen a bàyyi xel bàyyi seeni xalaat di leen déglu c'est important koo xamante ni balaa 9h nga nelaw ba xiddanti ko xale yi ne ci mbedd mi nga bëgg leen wax mbedd mi da nax sa bopp. neuf heures fekk tëdd nga bay xandoor xale yaa ngi ci mbedd mi ba nangam nga ne yow mii xandoor yaa leen di wax ne ci mbedd mi waaye da ngay nax sa bopp amul rabbu awlaadakum li zamanin gayri zamanikum fa innahum xuliqu li zamanin gayri zamanikum la Seydina Ali wax xale yi am nañu cër ci mbir mi nañu leen di bàyyi xel te di leen déglu te bu ngeen xamee ni nag nangam rawatee nag ñañu ñuy tudde xale yi wajilé jile fuñu ag man bala 8 h ma ngi xandor mais xalé yaa ngi mbédé mi man mi xandor ci sama lal wara mëna gëna xam orienter xalé yi ci mbédé mi damay nax sama bop kon nañuy concilier les deux sagesse bi dana ci ñun mais war ak nangam bét xalé yi nañ leen di bayyi xel et lool rek lay wax di santat bu baax ñoom seen taxawaay masha allahu E sant leen ci li fi jot a xew ak ñoom Moussa Assane ci jamono yële weesu ñun loolu mooy sunu fierté li ma leen wax ñii génn nañ fi ci xeeti xam-xam macha allah yu am solo loolu nag lañu bëgg mu gën a samp nangam bi door di dem nangam euh, dama bëgg a tëje nag ci la communauté layeen Seydina Limaamu mënoo la wax ni allahu ba noppi di xaaj nit ñi nun duñu wedd sunu bopp manoo la ilaha illallah bu ñu ilaha illallah nak. du mujarrad kalimat, ay wax yu ñuy sanni mais dafa wara nek nak lo xamanteni mom nga wara dundé dunde ci ci sa nàngam ak ci sa comportement ak ci lepp dotim gay du mbubba yu wex yu ñuy sol ñu ñuy wa na nga déet lu ci ne amna lu tax bay lay defoon ko te bu ngeen laaje mag ñi dañu leen ko wax li am solo la leer ca bàyyi lay mooy la leer ca yàlla képp koo xamante ni moo ko waxal boppam waxuma ko te dem leen ca ñeenteelu xutbaam di ngeen ko fa gis ba mu ñëwee ci ku mel ni ñun ñu tuddeenu kilifa diine wala sëriñ si den am na lu mu wax dañu waajibun ala kulli cheikhin an yahrisa ala taatillahi wa rasulihi di wax a wax ba ci ba ca suuf lan la ca teg ka annahu asqata nafsahu fii suqtilaa mun adaahum wa adal adallahum wa adaahum koo jàkkaar lool kuy kuy wax sangu dangay ngay xam ngeen ko ci olof kuy digle sangu mais dangay sangu kon moom dégagé na responsabilité am mooy ni diine ji kenn moomu ko yàlla ak moom Sëriñ Ablaay mi nu jur ndax bi muy dem dafa yóbbaale diine moomu ko ba koy yóbbu Seydina Isa waajuram bi mu tër tekkee fii naa Limaamu tiim ko dafa am lu mu wax ku fi sama baay andi woon sama baay dem na waaye ku fi yàlla andi woon yàllaa ngi fi kon Seydina Limaamu moomul diine ji keneen moomu fi diine yàlla rekk moom diine kooku nag moom la nu jaamuloo woon bi ixlaas wa nangam loolu la fi Seydina Limaamu indi fexe ba nanu jaamu yàlla na mu gën a rafete Seydina Isa wax mag ñi ni sama baay ñaanal leen àllaaxira mais man Seydina Isa teg naa ci ñaanal leen àdduna donc ci équilibre <laughs> mais nit ki doo dund équilibre mais daanu fa lay tëjee pouvoir économique laa ni bis bu jot nga ñàkk ka amoo ambition gars yi daanu ko wuti am pouvoir politique jiite la maa ko wax leneen xam nga looy mujje da nelaw gars yi jiite la rek doo ci mën dara kon loolu rek laay wax xale yi di leen di leen di leen encouragé. Mhm. ah. ah. allahu akbar allahu akbar xale allahu akbar donc nag ah zamaan booboo tamit macha allah du fi jóg ñun yàlla suturaal nañu amal nañu ay mag ñoo xamante ni orienté woon nanu leen kon maam bay xale yaa ngi nii ak njaboot gi lii ma taxaw tey. ak ñoom ak samay jarbaat ak ñeneen ak gaa yaa ngi fee toog donc euh, ñoom ñii li may taxaw fi def ñoom ñëpp macha allah mën nañoo taxaw fii def fii li ñu fi def sëñ Cheikh ñoom a nga na le ñoo am mbégte bu baax a baax nag di leen ñaanal yàlla di am di ñaan yàlla yàlla leen yàlla gën a dëgëral suñu kilifa yu baax yéet yàlla yàggal leen fi bàyyi leen fi téye leen fi ba li nga xamante ni patrimoine bi ñu téye uuf ko téye ko ginnaaw yàlla ñu téyeel ay mag ñu fi nekkoon damay wax nii ku ndoom bu tànk déranger da nga amul l'islam bi mu ñëwee fekk na fi ay ndoom bi tànk mais daka ko réformé mu réformé boo gisee yonente bi wax ni ci jaahiliya ne woon ci jaay bu ñu duggee ci lislaam mu ni ñëw fi gënaat ndax jikko yaa tax kon dafa am loo xamante ni pour mu war a mën a sampu dafa am lu fi ay mag bàyyi woon toog ci defe naa ni fii saltige ngi nii xam na li may wax bi sëriñ laay jëkk toogee fan laa jëkk ñëw du yoof fii ci jàkk ji imaam lay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu wax fi ay wax gaa yi dindi wax ji ma lànk amul waaw dañ fay ay wax jamono war fe dox <laughs> man ken duma ma sagasul ablay ciow dina fi ne nga di nga teb seyna dangam do dem lolo andi affaire bi kon lanu wara meuna mën a ci kanam fexé ah <laughs> fexé ci ay mbir di ci concerté wu nak di dem defuñu ko ah ñu wër ndomb rek ñuy ciow rek lolo fi ne kon ab and nek deug di lal

ak loo mën a doon wan nu yàlla nag nu mën a ne sa gannaaw man ku ma wanul yàlla duma la xool te damay dem loolu rek laa am lu may wax aqulu qawli haza di gërëm ñëpp di sant ñëpp allahuma salli ala sayyidina wa sallam